mu liggéey euh, Sénégal euh, major décision bi nga xam ne euh, président jël na ko démb maanaam tas assemblée nationale mu nekk loo xamante ne ñenn ñi xaaroon nañ ko ñenn ñi xaaruñu ko woon waaye rek mu mel ni def na ko lan moo tax mu def ko ak yow naka nga jàngatee boobu décision. <coughs> mais loolu stratégie politique la. Mm-hmm. Euh, mais tout le monde savait que dañuy day dissoudre institutions yi parce que les institutions yi nga xam ne moom la fekk. Mm-hmm. ay institutions yoo xam ne ñi ko ñi ko occupé c'est ay adversaires politiques am lañ. Mm-hmm. maintenant si tu veux gagner de mm-hmm. trouver ay adversaire politique tu trouves des adversaires boo xam ne am nga moyen pour daane ko. Mm-hmm. mais da nga koy c'est clair donc euh, vous savez en politique. Mm-hmm. c'est comme ce qu'on appelle la guerre quoi mais c'est une guerre intellectuelle une guerre de conviction euh, pour convaincre des gens et avoir des partenaires c'est la même chose c'est une dualité dualité la mooy xëccoo la quoi donc ay y a des nga qui yow par exemple euh, opposant ba pare occuper ay Sénat ay CSS ay HC mhm. comme comme des députés hautes, avec un nouveau régime. Mhm. ngène majoritaire. mais vous ne lui donnez pas l'occasion, c'est clair et net. Et lui aussi, si la loi lui permet de vous dissoudre, il va vous dissoudre. Mhm. Il fallait le savoir. C'est presque affaire le le xamné C'est presque zéro commentaire pour, à mon avis. quoi. Mm. Parce que tout le monde sait que quelqu'un qui est là et qu'on peut enlever, parce que c'est Michel là. Euh, par exemple le président Diomaye ak mhm. mais imaginez le 17 au soir. nous avons 20 députés. Mhm. mais où est-ce qu'ils vont partir. dañu jouer parce que d'autres gouverner. Mhm. parce qu'au Sénégal c'est une constitution qui est un certain moment presque ay député haut mooy mooy dem parce que boo ñëwee dañ lay censurer dañu mm-hmm. ko di la censurer ngay ngay ngay ngay tas et puis doo ko mën sax gérer mm-hmm. mënoo ko parce que benn loi du jàll dañu def blocage di la seetaan te dootoo leen mënal dara mm-hmm. donc stratégie la boo xam ne yow ñi ngi ko seqal yéen yéenay am seen fayda demaat fa ngeen commencé woon buti ay nit gis nga le fait de commenter ça wala de se de se lamenter tu perds ton temps parce que lui il est en train de se sauver ah Mhm. vous savez l'agressivité là notion quoi c'est un réflexe de préservation et de conservation c'est ce qu'on est en train de vivre mhm. chacun veut conserver ce qu'il a acquis et autres parce mhm. en matière politique en matière de gouvernement rien n'est acquis c'est de l'éphémère à chaque moment c'est-à-dire même ce que nous vivons là. Mhm. mais dans cinq ans ou maximum dix ans da ngay top Sénégal il lépp sàppi dañuy jël beneen Alioune Kandji léegi ko mu président de la République. Mhm. ñëpp topp ko mu donc il fallait s'attendre à ça. Mhm. Euh, euh, après deux empires, pile. Mhm. mais conseil constitutionnel lay dem ils autorisé. Mhm. c'est eux qui l'ont autorisé de dissoudre et d'éliminer ses adversaires mais il le fait. Mhm. article 87 il parle de la constitution donc il autorisé. donc y a rien à expliquer Le dul de faire campagne. convaincre. Le ngay de faire campagne convaincre. les ay opposition affaires mais les gens chaque au Sénégal connaissent na c'est bëgg moi c'est problème. finalement tout le monde se disperse y a une grande entité. Mhm. même en France da ngay gis léegi commencé woon nañu am problème bi mais néanmoins il y' a trois quatre yu génn. Mhm. États-Unis gis nga ñom ay deux lañuy ñuy doon réew mi ku nekk xam programme bi wala programme bi mhm. mais il fallait s'attendre ay affaire mu jël ko c'était prémédité ñëpp xamoon de dañuy dissoudre euh, assemblée mhm, nationale. Mhm. même les vernacles ak ñi jàng ak ñi xam nañ ko. Mhm. donc nag léegi li nga xam ne mooy mooy fayda. mooy nga bëgg nekk député comme moi. personnellement je veux être député pour les ah, hommes de tenue et autres. les hein. retraités et autres ça c'est clair. dans les jours à venir je vais m'activer sur ça. et fortement. parce que c'est mooy mooy mooy mooy mooy état c'est-à-dire il faut que ku nekk programme bi nga am social bi nga am. Euh, le projet que vous avez qui répond à des normes bi nga am dem défendre ko parce que député aussi en grande partie ñun ne pas ce n'est pas des députés pour s'opposer à faire kenn doo faral kenn doo défendre une entité une corporation député c'est pour défendre une une corporation humaine mm-hmm. ou défendre une corporation professionnelle mm-hmm. défendre des institutions et autres mm-hmm. et que aller vers l'avant et défendre ta corporation c'est comme le syndicat du peuple député syndicat du peuple là. Moi, syndicat populaire. Mhm. yow da ngay nekk syndicat boo xam ne da ngay jékki-jékki ne man retraité yi yëpp laay défendre ak magistrat yi wala ñu retraité. Mhm. ak comme ñu nekk en activité muy sa option. Mhm. nga dem ci loolu comme moi man c'est l' option que j'ai et que je veux développer. mais je m' ça m'intéresse pas des politiques politiciennes. ça m'intéresse pas. farak Massamba ak ma Demba je voudrais défendre li ngay défendre. actuellement nag liy wax ji mooy ku nekk da nga jël sa projet teg ci place dem jéem a sur le terrain convaincre des des personnes qui xam ne ñoom gëm nañ ni kii bu ñëwee ëllëg député mm-hmm. dana leen aider dana fi wax lu am njariñ mm-hmm. dana défendre mordicus ay projet de société à nous mm-hmm. développer société mais quand tu taxaw sa adversaire politique ce rival yow nit bu ngeen de xëccoo benn jeeg mais vraiment nga naan nga naan daf mais ba ma fett jeeg mais tu perds ton temps mais c'est la même chose affaire politique yi du affaire yàlla du affaire tiyaaba du jaamu yàlla affaire politique affaire àdduna la c'est la dañuy xëccoo donc tant que yaa affaire, euh, le plus fort moins gagné moins gagne comme qui na arme l'arme pour ne dañ ko mais il l'utilise l'arme est conventionnelle hein. mhm. <laughs> l'arme qu'il a utilisée est une mhm. arme conventionnelle mhm. parce que si nous institution yi ñoo ubbi fenêtre bi parce que nous Abdou Diouf ak la possibilité de dissoudre mais est illégale xam nga loolu bu constitution est un acte illégal parce que nit avons ñu au suffrage euh, genre suffrage universel parce que les députés sont élus par le peuple. mais au bout le président mën nga taxaw yow chaque deux ans nga mhm. ça veut dire que donc c'est les institutions étatiques. qui mhm. ont mhm. parce que dis dissolution dissolution yi en ah, même France am le gars a dissous. il a dissous il a dissous le parlement en France. cela veut dire quoi que l'institution française est parce que les députés aussi c'est normal légalement. il y aura sa carrière mi ngi mel tay nga carrière ba médecin wala qui, am euh, le ministre de la santé a la possibilité de radier. Mais mhm. si en veulent ils n'ont qu'à en vouloir à la constitution. Mhm. qui a prévu ça. Mhm. et aux gens qui ont élaboré ce genre de texte là. et puis c'est un texte c'est un abus. mais ils l'ont trouvé ici. parce que leur prédécesseur ko fi pour am pour mener note pour faire il il en profite mais parce que xamna na xam ñi waroon nañu xam ne du leen bàyyi ay 5 ans ñu nek ak hmm du len baye ay 5 ans ñu nek ak mom mais mom mo jàppoon euh, datu le 13 ngeen ñu amal ci DPG la veille Moutas assemblée. est-ce que loolu tam de jouer ci crédibilité non mais da leen doon divertir il n'avait pas le choix. il fallait mu divertir len pour ñu baña utiliser d'autres moyens de droit attention gars yi dañu gars dañu xam affaire bi de. gars yi nek fi sur place ñu nekkoon sur place. Mhm. dañu xamoon ne ay affaire yoo xam ne créer ben incident bo xam il faut ñu vidéo il mhm. est mu divertir leen da divertir. Mhm. il n'a pas le choix parce qu'il veut se sauver mais il, se s'est sauvé daf divertir. le treize waa ji xam quand ils te disent que le waa ji day le 13, mhm. on sous-entend que rien ne sera dissous ngeen ne ne mu toog <laughs> mu dissoudre ko dem yoonam maintenant rester au pouvoir et être crédible. être être incrédible wala voilà, perdre le pouvoir et être crédible. ban nga ci choisir si vous faites la politique on a euh, l'utilisation du décret présidentiel bi nga parce que dañ ko utiliser justement à des fins politiques et mhm. que le décret euh, surtout le décret présidentiel n'est lo xamantene ni justement war na ni dañ koy wax ba c'est-à-dire problème ñun sénégalais cest Sénégal <laughs> de mais vous savez en politique madame rien n'est figé la politique en Afrique maintenant c'est de la démagogie c'est du sauve qui peut da ngay wax benn politicien en dans ce monde wala où que ce soit. Mhm. léegi les dafa changer. Il n'y a fay wax peut mënuma wala du ma ko def. amut wala Il n'y a seet foo que a rëccee ñu naan le décret présidentiel la crédibilité ne devait pas ça Il y a empiètement y a empiètement par exemple entre le le le le le législatif et l'exécutif on peut dire quoi, le législatif c'est politique et l'exécutif est autorité, quoi, des décrets, des arrêtés et autres. Mhm. Ça ne tient pas la route. un c'est cet empiètement là, mhm. en tant que président, il n'est pas président de la il est chef de parti. Mhm. xam nga Le président de la République yi am Afrique ci c'est des c'est des politiciens qui sont indi foofu léegi leur parti politique mom la sauvegarder pour ñu mën aider ñu gouverner moi tax boo ñëwee nga am possibilité de faire des DG de faire des la neex xam nga exemple là, la jox comment un médecin-chef qui est dans un hôpital médecin-chef ne doit pas remplacer. Mhm. mais imaginez ça c'est mhm. politique c'est extrêmement grave le médecin-chef c'est un grade un médecin-chef mhm. surtout un médecin-chef tu dois pas, pouvoir le remplacer. ont un genre dans une armée est le plus ancien le plus gradé il part pas à la retraite. mais boo da ngay jël di ko vous foo day toog ba mais parce que maintenant système bi utilisé, utilisé système politique bien utilisé le pouvoir exécutif qui est assimilé à un pouvoir euh, politique, c'est-à-dire que tout est politique parce que tu gouvernes en fonction de tes projets politiques mais gars yi kenn en Afrique à amatul gouvernance bon, gouvernance, ne d'une manière euh, ordinanthrope comme le disait Roger Garoudi. quoi Du gouverner ligné parce que c'est de la méthodologie enseignée c'est technique c'est nangam ça tient pas la route les gens ni gouverner politiquement pour rester au pouvoir gagner le pouvoir rester au pouvoir. Mhm. Les koo xam sa adversaire politique wala dangam les les fi ñëw da koy a appauvrir. da koy jéem désorienter. Mhm. da ngay même le Malien là hier on a loi dit de libérer les politiciens là. Mhm. Mali Assimi Goïta. mais il avait arrêté 11 politiciens et chefs de parti autres qui s'activaient parce qu'il a des idées mutigées. il est il est militaire il gère une transition selon la notion de forme de ne a affaire yow mon droit présenté où et il veut rester au pouvoir mm-hmm. il veut faire le jeu de ATT le jeu de nangam il veut rester au pouvoir mais hier les magistrats là-bas au Mali au Mali ont pris leur courage en deux mains mm-hmm. ils l'ont sommé ils l'ont dit que nous devons libérer mm-hmm. mais ça le plaît neexu ko mais parce que sénégalais ont théorie ñuy wax naan décret présidentiel ak décret arrêté présidentiel décret présidentiel mooy dindi nit ci illégalement daa lay teg fa mais Major lolu su amé c'est très grave parce qu'on a l'impression que li nga xamante ne nii moom mooy euh, askan wi. Mhm. Euh, ñi nga xamante ne ñoo porter seen choix sur une personne am ci mom confiance ba wara mëna jël lu toll ni réew dal di koy tek ci loxom koku mëna xol li nga xamante ne nii dem dans le sens de ses intérêts sans pour autant bàyyi xel ñi nga xamante ne nii élire. parce que tey su fekkente euh, on a le décret présidentiel <laughs> bu wax lo xamante dafa mais sur le plan national et international.

représenter le peuple mais mais mais parce que la euh, en matière politique. Mm-hmm. la partie le parti dominant la corporation dominante est considérée comme légitime et l'autorité légale. Non, lay demee gis nga ñi nga xam ne mm-hmm. solution bi de gagner a gagné fi Afrique ak Sénégal affaire politique yomb na fi parce que booy ñëw euh, sénégalais yi moom ku ñu topp ci politique dañu alimentaire lañu. Mhm. dañuy seet fu ñu tekkee ak lu ñu am. d'accord buñ ko amatul nga jëlee la fi. d'accord d'accord mais ne di jamais li nga wax noonu comprendre ko ça la déontologie. en mhm. matière politique. mais mhm. ça ne pas dans les cas africains là. partout c'est la chose. d'accord major dinaa dinaa dikkaat ci yow euh, ci euh, kanam tuuti ana damay ñëw ci yow tuuti. mu mel ni décision bi nga xamante ne ni moom la président jël ngir tas assemblée nationale am na ñu mu bett waaye yow moom. yaakaar naa bokkoo ci ñi nga xamante ne bett na la parce que toog nga fii euh, bërki démb je pense wax ni carrément président dina euh, tas assemblée tey li ma la laaj mooy euh, président tas bi mu tas assemblée ak décret bi nga xamante ne ni sekkoon na ko diggante moom ak waa assemblée mu mën nañ ne teggi waxam daal di indi décision personnelle muy tas assemblée est-ce que tey du jouer ci crédibilité am au niveau international surtout. waaw loolu nga dégg sànq ma ci interpellé major. au mm-hmm. niveau national

nii moom sa crédibilité ñak nga ko maintenant su fekkente ne mom en tant que citoyen lambda mom mo meuna reconnaître loolu mhm. waxatuma laak nak ki nga xamantene ni da nga nek un président de la république mhm. n'est euh, nit ko xamantene ni république ngay représenter tay su fekkente ne le président dafa jël un décret euh, dal di wax ni euh, assemblée nationale parce que li am ni je pense que ñak def DPG bi mom moko indi mom mhm. mo indi également tay ñoom ñu bëgg dissoudre li nga xamante ne ni moom moo di HCCT mhm. ak euh, euh, seize mhm. euh, ñu wañ loxoom ne loolu du fi am rejeté projet de loi bi wax na ko d'ailleurs démb ci discours bi mhm. wax ni également loolu nga xamante ne ni daf ko doon daf ko bëggoon def dafa projet de loi boobu dafa doon dem ci intérêt wala boog ci li nga xamante ne ni askan wi moom lañu bëgg waaye gis nañ ne les députés de la majorité nanguwuñu loolu loolu bokk na ci raison yi nga xamante ne ni moom du mën jàllale sa politique euh, convenablement euh, tax nak nous juger nécessaire à ce que nous dissoudre assemblée nationale parce que mm. après nous, motion de censure dugg. Mhm. Euh, par la suite le président a convoqué li nga xamante session extraordinaire ba ñu dugal ci DPG ak yooyu noonu. Mhm. man bi ñu ko waxee euh, moom bu fekkonte ne dafa génn dafa signer décret présidentiel amul sorti amul dara. Mhm. man dina n'anguni, ni euh, xëy na DPG mën am. parce que tout simplement dama ma ni lolu sama gis-gis la man engagé. dama japp ni en tant que président de la république je ne pense pas que warna meuna taxaw wax lo xamante xamante euh, ni daf ni mhm. euh, non seulement sur le plan national duñu mais sur le plan international également Nous mhm. euh, am ay relations yoo ni moom dox suñu ak yeneen finalement nañu ni la signature du président mhm. amul valeur parce que tout simplement de signé wax nangam ni dina am ba mu dem def leneen également ni assemblée nationale dissoudre na cette déclaration bi nga xamante Ousmane Sonko def Nako, mm-hmm. parce que tout simplement lu ci bari ci sorti Ousmane Sonko bu ko waxee dafay nekk loo moom mais à la seconde qui suit dañuy gis ni loolu dañu koy appliquer gis mhm. par rapport ak reddition des comptes bi nga annoncé ko mhm. ñu ci ay anciens dañu ñu annoncé primature loolu moom gis ci ñaari institution yi nga ni dañu ko tas mhm. ko tas assemblée président euh, wax ni euh, dafay euh, destituer ña jité institution institutions mhm. mom même Ousmane Sonko bi mo wax député yi bu le 13 jotee dinañu tal <laughs> mhm. wala mais lool ça dit dire si nit ku mel noonu mhm. da ngay xam ni que ki limuy wax fu leer la ko parce que Ousmane Sonko man damay wax ni ak lu mën di am amul dara luñ koy reprocher parce que moom si logique bi mu depuis. ci la nekk imposer dëggal boppam. Mhm. def boppam jiitu réew. Mhm. ci la nekk des fois nag dañuy faral di dégg ñu ci bëri. Mhm. di wax ni dañu yor réew moo xamante ne ni dafa am nit ku ñu tapp pour mu jiite ko. waaye waaye am na keneen koo xamante ne nii moom moo nekk ci ginnaaw moom mooy jël généralement les décisions. te loolu boo seetloo ni mbir yi doxee sax xel mën nga euh, am euh, xel mu ñaaw ni effectivement loolu moo am parce que boo xoolee ci euh, wax. ci démarche ci ak yeneen mbir yoo xamante ne ni dañu koy faral di gis euh, da ngay gis ni effectivement li ñu doon wax euh, même bu nekkul dëgg à 100% pour cent ça ça renferme quand même une part de vérité mhm. et je pense que euh, encore une fois major loolu la may wax sànq ne que en politique mhm. li ñu mën moom défendre seen ay intérêt dëgg la mhm. mais moi je pense que ak lu mu ci mën di am itam il faut itam ñu sóoraale li nga xamante ne ni moom mooy l'intérêt du peuple parce que pour man intérêt peuple boobu noonu moom moo tax ñu euh, jox leen réew mi ñu wóolu leen ba dénk leen intérêt peuple boobu noonu moom moo tax ñu choisir le changement à la place de la continuité mhm. donc lépp loo xamante ne ni décision la bu ñuy jël encore une fois dañ si war a sóoraale le peuple mhm. ñu sóoraale ci euh, le peuple